aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah ñu ngi santaan yàlla bu baax a baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam di ñaanal ñëpp te di ko saaku si di leen nuyu bu baax a baax di leen ziyaara tamit lu baree bari di leen assalaamu aleykum wa wa barakaatuhu amaan mbégte lool toogaat fi jàkkaarloo waat ak yéen comme niñ koy defee rek saa su nekk ci xumb ta dagan ci fàttalante tey nag dañuy ñëw ci fàttalante waaye nag ci événement bu rëy bu xew Sénégal muy tiis bu rëy muy naqar bu rëy rëy bu dal ci umma bi muy kan Adja Seyda Zeynab Fall macha allah yàlla nañ ko yàlla fayal yàlla na yàlla yokku yërmandeem ci kaw yàlla na ko yàlla booleeg nga xam ne mooy soppeem ba sallallahu alayhi wa na ko yàlla booleeg moom mu teeroo ko ci aljana yi gën lu mënta ñàkk nag day am te boobu ba léegi li tax waxuñu dañ koo mënut woon wax dëgg yàlla waaye nag muñ rekk a fi sës sagam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo fi desul kenn fi des muy man mii di wax ak yéen ak yéen ñooñu di ma seetaan ku ci nekk ci ñun rekk bës dana ñëw ñu sang la sang la gas pax ba mu xóot dugal la ci waaye bu ñu fàtte ni pax moom suñuy jëf rekk moo ñu fay fekk mooy mu baax walla mu safaan yal nañ ci yàlla musal kon def lu baax rek moo am solo du alal moo la fay fekk du doom moo la fay fekk du xarit du kenn ndax mosuñu gis nit ku ku ñuy denc rek ñu boole ko ak lenn dugal ko fa déedéet wala kenn dugal ko fa déedéet yow rek yaa fay ne say jëf rek la fay fay kon macha allah suñu sayda seede ya rafet na jëfam ya rafet na muy exemple nag di monument bu rëy ci ñun jullit yi waaye monument bu bu rëy ci ñun jigéen ñi waaye rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk seen biir néegu sëy di sëy ndax ku ci nekk ñun rek gis na seede yañ ko seedee mbooloo mu baree baree fa nekkoon macha allah jafe na nga dem ci dëj fekk fa mbooloo mu toll noonu jafe nga dem ci dëj fekk fa mbooloo mu ko gunge mu toll noonu waaye jafe na nga dem ci dëj fekk nit ña toog fajar ba ngoon te kenn waxul dara naaj ba naaj sunu kaw ker ga ker sunu kaw te kenn waxul kenn boosewul ku jooyul zaahiran rek jooy nga baatinam muy lu metti lool waaye ñu muñ loo ko yàlla muñ loo sunu bopp muñ loo ko yéen tamit muy soppeem yaag xaritaam yaag am di jaamu yaag muñ loo ko ay waa këramam yépp rek seede ya nag bañ ci gën a marqué te gën koo seetlu mooy seede ya nga xam ne moom la bërëb këram seede ci moom ndax ci ay waxam nee na bi mu amee fukki at ak juróom la ko jëlee ci loxoy waajuram ba ni mu amee 38 ans macha allah kon ñun ñëpp moom moo ñu ko gënoon a jege moo ko gënoon a jege ñépp ci biir ñaar fukki at ak ñett yooyu ndax ñaar fukki at ak ñett di 23 ans du benn fan du ñaari fan du ñetti fan te bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk te des fois ñu laale waaye nee na moom Seyda Zeynab coow mësta am ba ñu ne moom la ak Zeynab Seyda Zeynab déedéet nee na mësta am kon royukaay ngoog monument wa noonu ci ñun jigéen ñi wax naa ko léegi ndax ku nekk li ngay xaar ci sa borom kër nga génn àdduna mu seedeel la ko moom balaa muy génn àdduna sax seedeel na ko mu génn àdduna mu def même chose kon loolu faw nga liggéey ku dëgg pour ñu defal la ko te yonent salaay nee na wax na ci xadis nee sa nee na isa sallatil maratu xamsaha saamat shahraha wa ahsanat farjaha faltadxul min ay abwaabil jannati shaa nee jigéenu jullit bi bu jullee waxtu yu juróom wóor weeru kooram sàmm pëyam nee na dina dugg bu deewee dina dugg ci aljanna buntu aljanna yi lañ koy ubbil yépp mu tànn bu ko neex dugg ci ah Seyda Zeynab xol sedd na suñu njortu rafet na ndax li mu liggéey borom këram seedeel na ko ak ñeneen ak ñeneen seede mbaaxam julliteem tiim dinañ ci ñëw ci gën a yaatal incha allah ndax duñ ko fi yemale ñu ngi koy masawu ñëpp di ko jaale ñëpp macha allah

ñu yemandi fii rek incha allahu ba beneen dinañ ci ñëw ci deuxième partie incha allahu macha allah yal nañ ko yàlla fayal Adja Seyda Zeynab Fall yal nañ ko yàlla fayal dinañ ci ñëw incha allah ci beneen jotaay wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin assalaamu aleykum barakaatu